toog ma nag Moussa man maa wax ak yow quoi dama bëgg nga bàyyi loolu quoi bàyyi sëñ Touba mi ngay song di ko wax boo amee problème personnel booy réglé ak mbàkki mbàkki réglé ak ñoom quoi. réglé wax leen lu la neex mais sëñ Touba amoo loo ko waxal fal amul loo ko xamal ba koy waxal sax def fi dara lu ñaaw ko nit nag day def yëfu nit quoi fal xam nga balaa leen de si fekk na quoi balaa leen si defal yëfu nit quoi fal parce que fii yow xam nga nu mu demee quoi fii. không không ngờ, xam nga xam nga ấy mu tëddee quoi bàyyi wax yooyu quoi man fii def naa ấy vingt ans xool bàyyi yooyu này ñun xamante nañ quoi I'm saying, parce que phi, I mean, không một fii ameen xam nga moo wax loo quoi Fall ñoom seen moo wax loo quoi ñoom seen bàyyi sëñ Touba sëñ Touba deful dara quoi Seex Fall deful dara Fall ñoom dañoo liggéeyal yàlla ba dem sa yoon quoi wala mun a jox cër boobu nga bàyyi quoi ngir yàlla ko bàyyi quoi ñu toog quoi faal que ay wax waxu sew yooyu bàyyi ko quoi xaw est que xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar jabar la nga ko wala sa jàng yeegul foofu xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa ñaata jabar la amoon dama gëstu loolu ko dama ne xoolal yërmande quoi faal balaa maa dégg ay waxu ay julli si géej gi ay dugg na fi géej la may julli si géej bi fii di Amérique la. Las Vegas xam nga Las Vegas non boo demee Las Vegas yi les magiciens la mais yi dañuy dox si ndox bi dañuy dox si ndox bi ndox bi lañuy dox koo xam ne gëmul yàlla du julli musul jaat musul sangu set tilim la def ba xasaw di njaaloo suba ngoon mooy woo seytaane seytaane buy ko muy julli muy dox si ndox bi du dox si ndox bi loolu day kéeman loolu du cott dem faal koo xam ne sëñ tubaa ku dañuy sëñ tubaa wala wala yàlla bu mel ni moom bu ñaanee lu lool sa yàlla may ko dama de xoolal tey utiliser sa maañ quoi booy utiliser sa maañ quoi yow Moussa Camara xam nga nga bàyyi wax ci quoi Fall boo amee problème personnel encore ak Mbacke Mbacke Ndoye demal attaqué leen man sama yoon nekk si mais Cheikh la Fall ak mam borom tubaab ba leen quoi may leen affaire ko parce que yow tuuti nga si trop quoi xam nga tuuti nga si trop quoi. yërmande na quoi Fall fa laa yem na quoi you know what I'm saying loolu lay wax na quoi yeah parce que mënoo nekk fii di xam nga di def loolu quoi yow yaa ngi dëkk biir Boston mais afa femme nu muy demee laa yow ñaata bool bool ñu nekk New York 116 mais Fall yërmande gaay parce que yërmande quoi parce que wàcce ndey sa gaale loolu du dara quoi New York a Boston deux heures de temps wàcce sa ndey sa gaale du dara quoi Fall taal ndey gaale loolu du dara quoi waaye bu jëngal ndey nit ñi quoi bul defloo nit ñi lu ñu bëggul def quoi bul defloo nit ñi lu ñu bëggul def parce que ñëw biir Boston jël la kidnappé sa ne dugal la si yóbbu laa àllu New York yi dëxal la faal delloo si la loolu dara quoi faal mais bul yeggaloo nit ñi foofu nag faal bul yeggaloo nit ñi foofu quoi bàyyi sëñ Touba bàyyi El Mari bàyyi Maki booy wax a sëcc waxal a sëcc faal booy wax a taalibe waxal a taalibe yi mais yërmande Fall yërmande quoi fal bool bool nekk sensé xool dara doxul seen diggante ak yow rek xaaral ma wax loolu nag ko dara doxul seen diggante ak yow ñu nekk sensé ñu nekk ñu jëz dara doxul seen diggante ak yow deux heures de temps trois heures de temps maximum ak fi nga dëkk Fall mais yërmande quoi Fall yërmande quoi Fall yërmande quoi Fall waaw loo xam ne bëgguñu fa yegg nag quoi Fall xam nga loolu yërmande quoi Fall fekkee da nga dof wala dafa am loo manqué mais nga dem faju ji quoi daxoo fi naan kenn daxoo fi tux kenn daxoo fi fol kenn gars yi dañ def lu ñu def ba toog si Fall dañ ko def ba toog si Fall xam You know what the fuck I'm saying? So stop that fucking bullshit, man. Be fucking you, nigga. Because you know what time it is? We know where to fucking find you. You know what I'm saying? We know where to fucking find you, nigga. Just, just cool the fuck off, man.